salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun tey ñoo ngi fii ci Touba ñëw seet seeti kenn koo xam ne nii jërul di ko am moo di euh, docteur Alioune silla bu Serigne Saliou la ma ci yokk sax loolu ndax moom boo ko tuddee tudd Serigne Saliou foo ko waxee ni ñu xam digganteem ak Serigne Saliou euh, euh, papa ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay siyaar di la jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ci lañ génn fan yi moo di Xelcom liggéey boobu nga xamoom moom lañ fii tool yi. waaw sëñ bi. loolu leen naa ci kontaan lool di sant yàlla bu baax di sant yonent bi di sant sëñ Tuubaa di sant sëriñ Saaliw liggéey Xelcom bi ñëpp kontaan nañ ci mbir mi taalibe yéeg ñëpp adduna bi yëpp a kontaan ci xel Xelcom ji ren tubaarkàlla tubaarkàlla ñu ngi naanal sëñ Cheikh Saaliw yàlla yokk ko wéral dolli ko kattan ba mu yàgg a jiite uh, kër sëñ Saaliw gi nga xam ne mooy xalifa bi maa ngi ñaanal aussi sëñ Moustapha nga xam ni sama lépp la sama mbokka daa ngi ñaanal sëñ Bas moom itam mi nga xam ne mii sama xarit sama sëriña xel kom gi moom dañ ci sant yàlla rek sant sëñ Tuubaa bu baax di di ku nekk xam na sëñ Saaliw ku gis na xel kom ni mel ren tubaarkàlla ñu ngi sant taalibe yëpp ñu ngi gërëm taalibe yëpp wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ni ñoo féeteeg sëñ Saaliw suñu xol sedd na ndax ña fa ñëw ku ne xam na ne adduna bépp fa ñëw xeet wu ne fa ñëw loolu nag jërëjëfe sëriñ Saliou yal na leen sëñ Saliou fay sant nañ ci lool kontaan nañ lool liñ ciy regretté rek tuuti mooy affaire bi dafa bari ay ay ay accident ay coow ak ay yooyu ci yoon wi ñu ngi ñaan yàlla ak yonent ak sëriñ Touba ak ci barke sëriñ Saliou bu déwénee nit ñi mën a dem ndànk ci jàmm egg ci jàmm liggéey ci jàmm def ci ci jàmm man de sama wàll laay wax wàllu taalibe nag laay wax ndax ma du gërëm taalibe yi sax ndax loolu sëñ bi la war waaye nag sama xir rek ak bëgg sëñ saaliw ak bu ma gisee ku bëgg sëñ saaliw rek ma yéene la lu ne ci àdduna suñu xol sedd na guy waaye am na nag tuuti remarque bu ma ciy def rek xam naa dama koy wax jëwriñ ji nga xam ni ñoo yor xel koom ñu bàyyi ci xel buñ ko mën a yeggee sëñ bi dana baax ndax ah nun de dañuy xalaat rek boo gisee la fa ñëw ci àdduna ci ay nit te nit ñi ku nekk boo ñëw indi nga ay saakuy yi ndox yu dul jeex te mbuusu ndox dafa baaxul ci suuf may ñaan jawriñ yi rek ñu yegge ko sëñ bi ñu def ci attention buñ dematee xel koom soit ku nekk yor benn saaku boo xam ne buñ paree ñu defar seeni mbuus wala ñu sàkk beneen bés ñu dellu ñu dindi mbuus yooyu parce que la fa neereen ci ci nit mi junni nit te ku nekk naan nga naan nga lu mu néew néew fukki mbuus bu yàggee xel kom yëpp dafay nekk ay mbuusi plastique te mbuusu plastique baaxul ci suuf loolu daal maa ngi koy fàttali jëwriñ ji maa ngi koy fàttali jëwriñ yi nekk xel kom ak mbokki taalibe yi ñu dimbale ñu ci def ci attention sinon xel kom day nekk ay mbuusi ay mbuusi ndox te loola bu duggee ci suuf si day mujj day yàq day yàq suuf si loolu daal man dama ko xalaat rek sama xel ak ak nekkuk taalibe ak gën a bëgg lu baax rek. mu mel ne Khelcom bi ku ne gis na dimension bi am léegi est kon jotul bu bu tollatee fii xañ na sëriñ bi moom ku xam njaboot sëriñ Saliou du ñuy dem di demander yi état dara est-ce que jo jarul jaratul bu tollee fii li nga xamante état jël ay matuwaayam ci wàllu salonnement li nga xamoo du yoon ci wàllu sécurité ci ngir oto yi daw ndànk. waaw la xam nga loolu loolu moom sëñ bi du wàllam wàllu état la état moo war a xam ne dimension sëñ Saliou xëjul fenn ba buy ëllëgee mun du ko prévoir. waaye sëñ Saali moom sëñ Saali moom daa universel ñëpp ko bëgg kon nag lu mel nii ñoom waroon nañ def attention ba nga xam ni bu xew-xew yu mel nii wala bi ñu ko commencé gis ñu dépêché fa ay gendarme ak yooyu jalon ne ko mën a maintenir sécurité bi xale yi oto yi di daw ndànk bu ko defee ñu ñibbi dem ci jàmm del si jàmm loolu moom état moo war di di xool dimension nit xew-xew bu amee nga xam ni kii xew adduna bépp a ko bëgg adduna bépp a ko sopp adduna bépp a ko yaakaar mais da war a anticiper loolu nag loolu fatu loolu gouvernement bi ñoo ko war a xam waaye sëñ bi moom du nekk di leen ñaan dara surtout boo xamee sëñ Cheikh moom moom yàlla ak yonante ba ak sëñ ak sëñ Saaliw rek ko ñor soxlaa loolu kenn dara moom day liggéeyal baayam di liggéeyal taalibe yi ku ko ci fekk mu ngi ci ku ko ci fekkul moom mu ngi ci soxlaa loolu daan kenn dara moom doyloo na sëñ Saaliw loolu moom jërëjëf euh, président comme ni nga ko waxee maa ngi naan ba président sax amin kon ndax xam naa ndax ndax day doon bë ndax da ndax day daana daa war a am xam naa ne moo tax maa ngi naan président ñu est-ce beneen bi ñu wàcc si jamono ji gis nañ bërki démb li nga xamoon di Grand Mbassa di bis boo xam day faral di am ñu koy tuddee ay jàmbaar rawatina si yoon ren ki nga xam ne président Abdoulaye la maanaam bokk ci sa njaboot moom bokk ci ñi nga xamante ni moom itam Euh, am na lu ñu ko jagleel loolu ci bis boobu lan nga ñu mën a dikkaraat ci bis boobu. waa Grand Bassam bi seetaan naa ko kontaan naa ci lool sant naa yàlla sant bu baax yonent bi sant Serigne Saliou ndax ku am doom wax dëgg yàlla gënul kenn moomul kenn yàlla di atte ah mu am loo xam ne nit ñi am nañ cofeel ci moom ba kuy xewle wala ku yéene da nga koy ko ci tudd waa loolu itam ak ngëm-ngëmam rek la taalube murit la Tuubaa la dëkk. fii la nekk ak man ba toll ni mu toll fii la nekk ak man ba am li mu am Touba rek ko ñor lu mu am Touba la ko la ko yéene moo tax nit ñi xër nañ ci moom léegi lépp lu ñuy def ci loo xam ne ci yoon wi la ah ñu ngi ko ci sédd cër maa ngi santit kilifa yi koy xalaat ba di ko tuddee. Euh, comme ni nga ko waxee ku ne xam na ne jamono ji ñu ngi dégmal li day ay élection xam naa ne première partie bi ndax affaire bi ñetti ñetti étape la. partie bu njëkk bi wàllu parrainage ci lañ toll wala toll ci li nga xam moom ne collecter li nga xam moom moo di li ñu doon collecté fii rawatina nga xam ne moom fi la ñuy àddoo kenn ci si ci ñi ñuy wax candidat déclaré yi muy président si la moom fan la toll ak situation bi fu mu toll jamono ji ak réew mi ni mu toll nii lan nga ñu ci mën a ab Ablaye nag nit ñi dañu xamul stratégie te it Ablaye meloon na ñenn ab Ablaye du politicien du politicien c'est un homme politique. politicien moom mbaw coow am naa lii jaay tiitar daal di joxe xabaar moom yàlla bindewu ko noonu taman yarewu ma ko noonu xale bu teey la xale bu tekk la xale bu xam ni muy dox pare parrainage bu ko waxee dañu wax na nit ñi wut ñeel ñi ñi mën a àndal ñi leen pare parrainer loolu jarul tentamar jarul génn di wax jarul di campagne campagne yu rëy yooyu na ngay dem say mbokk say am di jàmm nga seet ñi bëgg a ànd ak yow ñu parrainé la bu ñu la ne nga dem denc delloo ko xaar parce que parrainé taxul jàll booy rëy làmmiñ di téere ci réew mi di wut ay nit na am naa nangam million maay nangam ah man lii def bu ma gañee xanaa bala ngay gañee bokk journaliste yi na ma yàlla baal yéen ñi da ngeen a garaaw parce que da ngeen di da ngeen di laaj nit ëllëg te ëllëg yàlla rek moo ko xam pare parrainage bi yow lan nga am ci réew mi mais parrainage bi taxul nga war a wax ci réew mi sax pare neel yow ba pare rek ba xam ni qualifié nga léegi da nga ñu ne da bëgg réew mi nan ngay def waaye ku demagul ku dem ku jàllagul première étape boo tarara fi def sa def sa def sa sa sa sa sa sa sa sa bopp wax lu nekk nga wax ko lii laay def ci réew mi mu yàlla atee demoo nag ñun dañ noo yar duñu rëy làmmiñ duñ coow duñ wax yu kenn xamul dégg naa sax bay naan seen waa ji lu tax waxul. wax naan tekki jii daal tekki ji moo leen jaa waaw ah, mais ñoom dañoo xamul àdduna rek yow boo àndee di dem yeggagoo nga naan bu ma toogee ci bi lii laay def yow da xam ndax di nga yeggam déet da nga xam suba lan lay yàlla indi parrainage lañ wax seetal ay nit yoo xam ni liñ lim bi wax nañ ko soo amee lim santal yàlla déposé soo amee sa réserve boole ci nga déposé yoo xam ne doublon la yu ñuy génne ñu génne la ba mu baax ba nga admé boo admégul bac noo bëgg a nekk professeur. ah titulaire de chaire naan man lii laay def lii laay def te yow si xegoo tànk Ablaye dañ ko yar dafay toog jàpp njàmburam xëy na léeg lañu ñu laaj ko mu wax waaye du du du du taggu du dem di téeréeri ci mbedd yi Ablaye noonu lañ ko yara de bu ko yàlla dimbali mu yor réew mi du mel ni perroquet yi nga xam ne lu nekk lañuy ñuy wër di wax naan di dig yàlla di dig réew mi lu yàlla waxut yàlla rek a xam nit day tey tey nekk taalibe nekk nekk nekk jullit xam ne yàlla moom ëllëg mën ngaa pare ne sax bala ñuy yàgg doo doo ko fekkee kon nag bu kenn jiitu sa adduna bu kenn jiitu sa sa baax na rek waaye nag dangay xaar rek yëf yi moom ñun yàlla dimbal nañu ji coowuñu réyu ñu làmmiñ waxuñu téeréer yi waaye la nit ñi am am nañ ko tubaarkàlla ba dese lu dul jeex suñu parrainage mën na tubaarkàlla moo fi nekk sa naan am nañ nangam am di bakku waaye daal li ñu laajoon làq nañ ko ba làq lu lu ko doublé. loolu la moo ciy kii ndax rawatina 14 régions mën naa ne 46 départements fu ne ñu am fa représentant na fii ñi nga xam ne fi lañ gën a jege fi la ñuy àddoo muy région de Diourbel ak ni nga xam noonu la fi doon déroulé euh, parrainage yi. ah région de Diourbel sant yàlla moom laa la wax rek Touba gii ñu ngi leen di sant leen gërëm Abdoulaye Sylla fi la dëkk man fii laa dëkk maay baayam Touba gii yàgg nañ fa defanteeg nit ñi teraanga yàgg nañ fi seq ak nit lu ne ñu ngi sant nag ñi ñu pare na ñëpp ndax gis nañu nit ñu defal Baye Sall si la mi xale la musul taxawati daanaka mu ngi door dugg ci te moo nekk coordinateur régional bi mais fu mu dem mu ne maay doomu Alioune Sylla sant naa ci yàlla ñu wax ko ci lu rafet ci man jàppale ko sonnul neexalul kenn jëndul benn parrainage jënduñu dara ñun dañu dem ci nit ñi nga xam ne seq nañu ñoom jàmm wax ak ñoom nag ni leen xale bi ci Touba dëkk te ñun li ñuy def daam lu bari luñ ci luñ ci ni sër ñun waa Touba dañ daan jëggaani rek jàppaleel ma Samba Demba mu dëkk Tamba jàppaleel ko dëkk Kolda diw ñëw na fi nangam nangam te ñun mët nañ tudd mët tabaski mënuloo am ay ay ay ay quatre cent bureau de vote six cent bureau de vote huit cent bureau de vote am am am am am trente ak quarante mille électeurs ba pare di di tay la sa bopp mais nekk député mooy lan ndaje loo def sa liste boo jàllee nga dem nga nit ñi woteel la pourquoi nu ñu yëf jël suñu bopp comme que ñun kenn attanuñu kenn duñu dañuy saax saaxee rek nañ bàyyi loolu. ba sëñ Saliou stratégie bi mu teg bi mu dikkee kon daa waxtaan ak yow ba tax na ndax région yi bokk na ci ñi nga xam ne euh, macha allah ci liggéey bi li nga xam ne mooy ci wàllu prédage bokk na ci mën naa ne ñi ci jël ñi ci ñi ci jël ndam li. ah loolu loolu day am ah Touba du moromu kenn région dañuy wax région rek waaye Touba département la bu mën dix région kooku jarul wax sax sëñ Ba sëñ ah, Baye Sall rek la dugg ci lii te li mu lim lim na ñetti région mais ñun ñu nekk sax di bàkku nan am naa nangam yàlla daal moo xam nañ ñu bàyyi suñu tekkaale moo ñu jig ñun dan noo yar réyu ñu làmmiñ di nem ci rajo yi di wax borom rajo yi ñu soxla bu ñu yeboon ñu toog bis bu wax jotee nag danañ xam ni mën nañoo wax suñu làmmiñ newuñ suñu poos te kenn moomuñu waaye nag yëf yi àndal ak yar ak teggin yi wër di pare ne di xas seen teeg di tappas gouvernement Macky Sall nañ ko bàyyi si jotewuñoo moom dara mooy président bu jeexalee dana dem mais fekkee pare yooyu da nga ciy wut nooy tappaseeg nooy xuleeg di wane nangam nangam ak réew mi dara baaxu feek baaxuloon kon danañuy dund ba nëgë ni nan sant yàlla ndar xëyul sotti man Macky Sall du ma ko xalab de ànduma moom sax du ma ko ndax def na lim mën ah bu amee ngoram nag ba pare bay dem mu seet ku ko xam ne kii yàlla dimbal na ko mu toog fi ñu ànd liggéey ci mën a sori waaye comme Amadou Ba la teg yow boo ko doon jox conseil jamono ji lan nga koy wax. Ah, man de xam nga nag mun naa ci mun naa ci bañ daal bëgguma tooñ daal xam ne moom magum jëmm te am na xel kaar mën naa politique man Macky Sall dama kenn jàngaluma ko dama ànd ak moom xam naa ko jàmbaaru politicien la ba moo tax moom dama koy jox ci wekk ko rek bàyyi ko foofu def ko xarit def ko jàmm ba lii am am. bu tànnee Amadou Ba ah xëy na moo xam yàlla na Amadou Ba euh, mérité lim ko tànnee bu tànnee keneen moo xam man daal tànnam moom moo xam ndax moom moo tànn mooy borom réew waaye nag duma ko ci tàggal duma ko ci xasal ndax moom du du jaayir de li muy def xam nañ ko de waaw gàkka garaaw par exemple bu mën politique la bu xam li muy def la bu yeewu la kaar mun na koo séenu fii mu dem fële mun na koo kar fii mu dem nële kenn mënu ko jàpp ba moo tax ñun dañ koy wekk rek jox ko cëru kilifaam c'est le président de la république ah moom nag mooy organiser te attention nga ngay bëgg a fu match football ngay draay arbitre bi mooy arbitre de waaw mooy arbitre de te te te te bonkal la de waaw ragaluñ ko nag waaye jox ko cëram rek yow nga ne ci li nga ne. moom dañ la mujj respecte si dañ la sa cër waaye duñ ko tappaas duñ ne tali bi wax lañuy bëgg a def ëllëg mën nañu koo wax ndax ñun ay jullit lañu xamuñ daañ fekk ëllëgam déet kii de programme ku ko wax ne daan le vingt cinq février deux mille vingt-quatre na ko fekk nanu xaar lu jot rek ñu ànd ak loola ñu wax ko bari parrainage moo xew na ko ne wuti yàlla dimbal nañu ak sëñ Tuubaa ba li ñu soxla am nañ ko buñ jàllee bu ñuy dem campagne ñu campagne campagne bu civilisé ñun duñu xas kenn campagne jarul xuloo jarul xeex te nit nit ñi campagne du campagne wër di takk rajo di di meeting di kii non demal ci gox yi nga nekk nga seet lañ soxla nga seet la nga ca mën ak la nga xam ne lii bu la yàlla dimbale nga jàppale leen ci loolu moo am solo ñooñu defuñu boo fa demee wax leen lu wóor loo xam ne lii seen njëriñ a ngi na ànd ak yow waaye doo fa dem nag di digge yàlla ak di digge aras ba pare te doo ko def loolu ñun daal dañuy jiital yàlla ak yonent beeg sëñ Tuubaa te it xam ni ëllëg ëllëgu yàlla kenn xamut deux cent et quelques candidats yëpp kenn xamu ci kuy fekkee déwén kon nag nanu maanu di wax ci li nga fekkee di wax ci bis bi nga bi la yàlla dimbale ba nga dund ko waaye lay ëllëg ah booy def boo dul yeewul trop di wax te xamoo lu yàlla nar da ngay da ngay ragaluñu nag dégg naa ñu demee ne du mënuñu duñu wax baax jot man mi bàyyam xam na ni man man naa wax te maa ko jur. xam naa ne toll xale yaa ngi mbëkk di dem nit ñaa ngi dem kenn xamul lu leen tax dem loo jamono ji ba lan ngay wax ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi. waaw ndaw ñi nga xam ci ñi ne mbëkk mekki bi man dama yaakaar ne tuuti politique gu gouvernement bi la rek parce que booy def politique gu te yow da ngay toog rek sa bureau génne sa xaalis def sa évaluation nañ génne tent de milliards pour les jeunes nanga on waa faire ceci on va cela comme li ma la wax rek gis nga Sénégal léegi boo bëggee ànd ak ñoom ku ne da nga koy fekk fa mu ne nga xam lu mu soxla nga xam lu mu manqué soo ñëwee fu mel ni Touba nga xam ne amul usine amul dara lu mooy nit ñi ñooy jaay seen doole di def commerce gëm yàlla gëm yonent ba gëm Serigne Touba di liggéey nga ñëw nga toog ak ñoom. nga xam lan moo fi manqué Touba amul usine amul dara te c'est très facile li fi dugg ci gerte pour pourquoi mënuñu am une grande huilerie ici gerte gi bu jàllee xottu gerte yeeg raakale yeeg yooyu pourquoi mënuñu am usine boo xam ne day defar day defar eh, aliment de bétail gouvernement bu aidé woon Touba ci loolu def formation xale yi di liggéey mais defu ko. dañuy ñëw rek ne may nañ xale yi nangam wala xale yi boo leen joxee ba pare muy seet lan la war a def te formé woo ko jàngaloo ko ñëw ñëwoo aussi xam li mën man bala ma lay jox dara dama lay wax lan nga ci nar a def mais mu ñëw jox la dix millions pare nga jóg taxaw naan lan laa war a def amee ah, doo ko xam leen li joxuñu leen dara. ñu ngi ko baas si deux cent quatre-vingt. ah deux cent quatre-vingt prix koy bay ba bëgg a dee ci àll bi jaay deux cent quatre moo tax ñoom ñëpp daa ñëw Touba jaay cinq cent six cent. Touba gerte dana fi dem huit man maa la ko fi laa dëkk tey damaa dëkkoon gaar bu ndaw xam naa gerte man lu ne def naa docteur laa waaye lu ne def naa ko xam na ba léegi it maa ngi def lu ne ndax yemuma ci docteur gi rek adduna da ngay diversifier di dugg ci lu di jéem a jaay di jéem a liggéey mais doon lii rek la am di ko doon maa la wax li gerte dana fi dem huit cent mais malheureusement bu ñu amoon nag ñun tamit Touba foo xam ne fii dañuy jaay gerte gi yóbbu ko ñu ñu ñu liggéey ko ñu am diw gu baax. mais dañuy bàyyi chinois yi ñoo ñëw tànn gerte gi baax yóbbu ko traité ko defar diw dikk di ñu ko jaay waaw looy nangoo ngay jox ci ci àll ba muy defar ñëw di la jaay yow nga toog loolu kenn xamul lu mu doon moo tax man la gouvernement man de du ma du ma xëy na du ma du ma un grand cadre yooyu mais am naa xel mu doon mën a man région bu ne département bu ne ni ngay politique gouvernement bi ngay def da ngay ñëw ci ñoom dajale leen ñu wax leen liñ bëgg xale yi li lañ bëgg a def nangam li la ñuy bëgg a def mbay mi li lañ ci bëgg njàng mi lañ ci bëgg xoolal xoolal Touba problème sanitaire ñu ngi ci am problème dul jeex pourquoi ñu toog waxtaan ak Touba financer des gosses koñ bu ne nga jël fa lu mat dix infirmiers dix sages-femmes dix nga former leen bu ñu paree on aura suffisamment de nga am d'infirmiers on aura suffisamment de mais xoolal li fi ne boo demee sur sanitaire yi ñi ñi mu Touba ñu fa ñett ak ñeent. ay gan nga fi indi xamuñu seen mentalité mënuñu vivre li tuuba laaj Touba dëkk la boo xam ne bii sëriñ Touba moo ko moom du du yeneen dëkk yi maanaam kër la dafa am boo fiy dox dafa am noo fi war a liggéeyee ah pourquoi on ne pas des jeunes yu mel noonu fi xam ne fi ñu dëkk dañu indi koo xam ne kii toujours on a des problèmes ici lii pour nga faju lu ne ngay daj ba pare Touba dafa cher faj mi yow da ngay yorob saret di ci dàq sa dépense yor sa kër suba nga dem marché del si boo amee def nga dépense mardi daal nga dem dal fii ci oto nga damm rek nga dem feer ñu la cinq cent mille quatre cent mille nga jaay sa saret raxas sa bopp jeexal daal di commencé dugg ci ndóol te yëpp on peut éviter ça mais bu fekkente ne yow da ngay toog rek ci bureau yi rek xalaatal réew mi waaw c'est pas comme ça te ñi ci àll bi yeewu nañ de koo dem laaj ko soxlaam mën na la ko wax du condition mool yaa ngi nii di dem géej lu dem jaay nañ géej gi jox ko chinois yeeg yi ñuy napp rek ñun léegi yabooy sax ñu naan ay mille deux cent. lépp xañ na 2024 bu président bu bees ñëwee ci réew mi changement dina am. ah bu amee bopp ah changement moom xam nga ni ñëpp ñoom ko nekk ak ni ngay jiitee rek ndax Macky Sall mii bañ ko jàppale defoon nañ ni xel mi weesu na fii te it góor la de man du ma ko xasee liggéey na waaye waaye daa daa am ñu bare bare bare ñu ci topp ci moom ñoo xam ne dañuy dañ ko jàppalewul rek te man mi wax naa ko ba tey waa naa ko ba tey xam na ma bu baax waaye nag ah léeg aussi xel day gumba tey Touba ah, Sénégal ni ñuy politique mooy na ma chef bi bëgg ak bu ma ko xoolee na ma xool man mos naa fi am audience ca temps ab Ablaye Wade mais benn waaye damaa dem naa ma eh, da nga am audience ma ne waaw ma mbaa sangu nga muy sangoo xërëm pour ma dem wax ak Ablaye Wade mais Ablaye maa ngi sant yàlla Ablaye Wade li ma koy wax xëy na sax du ma ko wax sama intérêt. dama ko war wax intérêt population bi ñun lu ñu jóg Sénégal lu ñu jóg xërëm lañ koy réglé ku ne ñu ngi lay xërëm Macky Sall mii meloon nii de mais gars yi wala quatre-vingts personnes des sëf guddeeg bëccëg ku ne di ku ne naan na ma bëgg ku ne naan sama projet bi na ko signé senegal oh, oh, Sénégal naqad naa yor lool naqad naa yor waaye yàlla na nu yàlla dimbale rek nun nag yàlla na nu yàlla dimbale bañ a jàll parrainage bu boobaa danañ xam ndax sekku lañu wala wala wala dañoo muuma waaw maa ngi ñaanal nag ñëpp jàmm rek yal na yal na yàlla def jàmm defal ko sama doom defal ko sama waa kër kontaan naa lool ñu jàppale Ablaye ñëpp xam naa ko maa ngi koy yëg am na ñoo xam ne dañuy dem sax ànduñu ak Ablaye ci politique sax mais ñu ngi koy jàppale xam nga loolu wërsëg la loolu chance la loolu loo ciy dox di wax nag mel ni peeg roke ah comme que yow yàlla def na am na ñu la bëggal seen bopp ndax gis nañ li ngay defal Serigne Touba ñu xam ne murit nga taalibe nga nangu ngaa sacrifier sa bopp nangu ngaa def lépp pour Touba jag te sëriñ bi lii fii rek la am fii rek la gëm sëriñ Touba moom Touba rek la bëgg Touba rek la am képp kuy defar Touba képp ku nekk ci Touba di jàppale sëriñ bi di jàpp di li sëriñ bi bëgg di jàppale sa mbokk taalibe yi giñ naa ci yàlla sëriñ Touba dana la fay. noonu nag payum suñu Touba sax moo ñu gënal ay parrainage waaw bu ñu amul dara it te ñu nekk ak mbokki taalibe yi. te yàlla def ñu bëgg ñu di ñaanal man moo ma gënal sax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu